bala fu mu jëm day am ndam. jeex na moom laa la buggoon laaj gay bombar Bombardier nga ni. fu mu jëm day am ndam Balla Gaye. Hmm. bari ne Bombardier Balla day am ndam. Balla Gaye dina daan Bombardier jël bu ñax xorom da koy daan. Hmm. jël bu ñax xorom da koy daan. kon daañu na ba pare fekk ñu defal ah bal bagage cool yi bari après ñu xool fu ñu jëm. Mm-hmm. <laughs> yomb na trop waaye Serigne Mor euh, xam naa ni dama lay jaajëfal bu baax a baax a baax en tout cas lu mën a xew mooy supporteru Balla Gaye yi supporteru Modou Lo yi supporteru Ama Baldé yi buñ naan vaar ñoom ñoo tax ndax lépp loo wax danañ ko jël coppet ko denc seen 30 secondes yóbbu la TikTok jàllale la Snap dugal la euh, WhatsApp àdduna bépp dañ la gis donc kon baax na euh, ma lay jaajëfal bu baax ci sa disponibilité. asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum adduna Pape Fall Waly Ballago Seck wax ne leen ah rek mën na fex leeral koo xam si bëgg a seeti sa yaram ah maanaam sa sa sa liggéey wala wala sa place wala dara wala kër yooyu di jënti nga dem seeti sa lépp dina baax si kàttan yàlla man maa numéro